jamono ji nga xamante ni nguur gi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ñu ngi def lépp ngir jàppale ñi nekk ci biir mbënd mi leen jàppale ci ay moto pompe jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci fédération des femmes face au du Sénégal di FEFADES ñoom tamit doxuñu ginnaaw ndax jël nañ tamit seen matuwaay ngir jàppale ñi nekk ci biir mbënd mi démb nag fa nga xamante ni moom mooy yëmbal sud fédération des femmes yooyu ànd ak collaboration ak ñi nga ñoom ñooy mode sécu jébal nañ li mu eau de javel bu bëri ñi nga xamante ni ñoom ñooy femmes alliées yu benn Bokk Yaakaar ngir ñu dem maanaam jébbal ko ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbënd mi ci lool nag ki nga xamante ni moom moo jiitee boobule kuréel di Lama Ba daan na ñëwaat ci li nga xamante ni jot nañ koo def. ñu ñëwoon nag tey ci biir yëmbal sud ak man may présidente bi ñu ñëwoon xam suñu tawatu mbokk yi ñu dëkkal xam suñu métit bi ñu dund actuellement le peu de bi am mu metti lool nag. ah ñun nag comme dañuy œuvrer ci développement di former di formaliser di financer ñu ne kon tey rafet naka la ñuy développer naka la ñuy jàppalee suñu yi nekk ci biir mbënd bi ñu defar benn production parce que yomb nañu ndax on ne toutes des productrices madame Thior a ngi nii defe naa ni jabel yi bii ñu fi indi tey yëpp moom ak Ndeye Ndeye Ndeye Dieng ma nga fële ci ginnaaw ñëwul defe naa ni ñetti fanu yàlla ñu koy liggéey. jàppale su mbokk yi nekk yëppal si ci eau de javel détergent pour yàlla dogal seen microbe ak yooyu yàlla musal leen ci. ah ñu indi loon leen nag 30 cartons de javel ñu indi leen 20 cartons de javel brut de bu weex bi nga xam ne mën nga ko raxasee cin mën nga ko raxasee douche lépp loo ci def brut la ñu indi leen yëpp. jébbal mu mel ne nag keneen koo xamante ni bokk na ci li nga xamante ni moom mooy boobu boobule kuréel moom tamit daal dina fësal seen li nga xamante ni moom moo waral ñu ñëw takku ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir mbënd mi. population bi am na ci ñu ay jigéen tey gis nga ñu ci toog ñëpp ay femmes ay présidente gouvernement kon ñooñu la ñuy def ciblé leen ci bu nekk ñu def ko benn point vocal boo xam ne lépp lu mu bu am site bu nekk dañ koy partagé yóbbu ko ci si bu mu xaw dëkkandoo yi nga xam am inondation bi ñu séddoo waaw mu partenaire yëngal yëpp nag

xeex ba xam fu ñu nekk ba xam ñun ñooy ñan kon nag weesu nañu ay détails propre fond la fédération des femmes développement du Sénégal ak le fond de lañ ko defee parce que jaral nañu ko euh, euh, li ci kanam aussi dama koy wax ndax yemuñu di rek ci femmes am na benn financement bu mag ànd en protocole avec une banque une grande banque incha lancement bi dinañ ko defee fii ci salle yëppal bi di dox nag ci ñetti ndam comme ni ma ko waxee ndamu président Macky ndamu jëm su ma benn ndam nag góor ñi sax ñu koy bëgg a lañ ci mais duñ ko xam ko xam su ma benn la ñu ko denc ba ko la sax bu jotee dinañ ko dox suñ ko la wax ñu du ndamu jëm ndamu ak beneen ay jigéen lañ nag di activiste de développement bu politique jotee dañuy dem ci ba jeex waa fédération des femmes fass au développement du Sénégal des ak waa Modou Sécu desuñu ginnaaw ci ni nga xamante ni moom mooy jàppale ñi nekk ci mbënd mi ndax jël nañ ay matuwaay yu bëree bëri bëri ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci mbënd mi ndax ñoo ñu lee dañuy soxla loo xamante ne da leen jàppale ñu mën di xeex yenn microbe bi waral ñu jël ay matuwaay jëm ci li nga xamante ni moom mooy eau de javel waaye tamit ay détergent yoo xamante ni ay lim yu bëri yëkkati nañ ko jox ko ñi nga xamante Benno Bokk Yaakaar ngir ñu dem séddale ko koñ yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi dund li nga xamante ni moom mooy inondation yi